fédération ànd mbooloo liggéey dajale ay liggéeykat yuy yëngu ci lépp lu jëm ci wàllum woto. jàkkaarloog taskatu xibaar yi. ngir xamal askan wi naqar yi nga xam ne moom la ñuy dund jamono jii. ndaxte jële bi nga xam ne jëlee nañ leen sa bërëb ba ñu nekkoon. doon leen gàllankoor. palaasu liggéeyukaay yi nga xamante ne ci moom lañ yàgg demande état te fi nu nekk bokk ci moomeelu état te nu gis ne fi nu nekk xat na lool te état moom li ci ginnaaw fi nu nekk borom kër yi ñu ngi tabax jege nu lool ba xat nu lool ba nga xamante ni yoon wi day déborder te état moom ci ginnaaw miir bi ñu bokk ci li ñuy demander état bi mooy ginnaaw miir bi mu dollil nu ci ci li mu nu joxoon donte li mu nu joxoon moo nu ko joxoon fi nu nekk moom moo nu ko daggal waaye nag xat na xataay boo xamante ni si bu nu joxoon ci biti moo nuy gënal ndax yëg na ni ci biti ci biir mi ngi koy joxe ndax am na ñaar ñu mu fi jox te ñaar ñu mu fi jox ay citoyen leen comme ñun te gënul nu fee yay kon donc lim nu jox nanu yaatalal ci biir ndax bëgg nan ko def ay garage moderne yoo xamante ne si képp ku fi ñëwati di nga nu respecté. koppar bi ñu loon ñi yëngu si wàllum artisanat jëm si aide Covid bi mécaniciens yi xam leen ni dañu leen si beddi waral ñuy sàkku si jëwriñ ba woon. moo indi si ay leeral. banque mondiale dafa génne 4 milliards pour Covid bi 4 milliards yooyu ñu def ci ay kit quelques personnes lañ ci jox ñi si des yëgu yëgu nu tinu ba nii nuy wax ak yéen. cinq milliards yi nga xamante ne si président de la république Macky Sall dolli na ko ci ci ministre Dame Diop ba léegi 35 milliards yooyu ñu jaare ko ci wisel monnaie yi muy 150 mille ñu bari ci ñun jotuñu ci. ni 30 mille personne personnes lañ joxe te 30 mille personnes bi ñu defee suñu calcul 4 milliards 500 millions moo dem 500 millions des na ci wisel yi léegi 25 25 milliards yi nga xamante moom la fi amadu ministre bu bes bi fekk 5 milliards yim joxe legui nak Dame job 35 milliards mom dafa yob 10 milliards yo xamanteni ñun xamuñu fu mu dugg kon donc 10 milliards yoyu nga xamanteni ne xamuñu fu mu dugg mom lañ bëgg mu wax nu fan la dugg ndax mak président mak Sall daf ko joxe pour ñun kon da wara aksi ci ñun. fédération bi gis ni kuréel li di DER ak fonds jip amuñu ben njëriñ ñu financer len ngir ñu gëna mëna suxat ndaw ñi mo len ëppal solo dinañ ko xamle. formation yi nga xamanteni ci DER mi ngi kay joxe mi ngi kay def ak fonds jip

pour bu ñuy man di dem formation yi di am lu ñuy accompagner seen wayjur kon donc ñun ñi nga xamante ëppal nañ 35 ans nanu gessu ci lool te xam formation bi ñu ndariñ mais site de recrutement mënu amal ndariñ ak formation ak euh, financement. ci seen tasko du xibaar yi ñom ñi di mécanicien yi le nañu itam ni su leen nguur gi bayiwul xel dañu wacc si mbedd mi. ndimbal li nga xam ne nguur gi jagleen na ko ñu yëngu si wàllum artisanat. ñu fexe di leen si boole te bañ leen beddi.